Euh, li jaaxal sénégalais yi mooy euh, lu tax ñu ni Bassirou Diomaye Faye mooy plan B wu euh, Pastef joxuñu ko député ñu ne jox ko Habib Sy mi système loolu daal dafa dafa dafa dafa jaaxal sénégalais yi. waaw foofu man xam nga wax dëgg yàlla su ma la waxee dëgg. Mhm. xëy na ñu bëri duñ ma gëm man bokkuma parti Pastef. waaw mësuma toog benn yoon ñii réunion. ak pastef mais sa modab bob nga bok nak modab bob nga bok eh, ki imam dramé nak lolu non non ah, modab ah, ko ah, ko ko sa modab sa autre chose man duma fa membre hmm. man aysatu man parti buma bokkon dana bok ci tedia ndax reina lamiñ reina lamiñ ko dinga bakkam ni nga noonu nga dee laaj gudd bakkan am ambition dëgg la yow moom ma taw waaw dëgg la de doo njaawaanu kenn kenn du reer sama gannaaw waaw loolu de am na moom waaw waaw loolu de loolu de nangu naa dëgg la man dama gëm rek gëm-gëm laay demee ak ñoom yàlla xam na. waaw ak cofeel dama gëm ne dama gëm ne dama gëm ne lii ñuy xeex combat noble la ma ànd ceeg ñoom. waaw loolu yàgg nga ko wax. wa billahi wallahi tallahi dañuy jël jomaa yeeg bu ñuy jël kii ba jàngat rek laa ci am mais amul luñ ma ciy tàggu man bokkuma foofu. dëgg la nekkuma ci côté boobu quoi. dëgg la mais ban jàngat li ma gëm man jàngat gi ma am foofu li ma gëm mooy. waaw Sonko moo waroon a dem. Mm-hmm. parrainage citoyen. Mm-hmm. demu ko. Mm-hmm. mu am problème mu jot fichier jomaay dem parrainage citoyen. comme jomay mo dem parrainage citoyen comme donc lu mën li lu ci continuer moy jomay mo demone wuti parrainage citoyen moy dem ci hmm. moo loolu la yobou conseil loolu la yóbbu conseil constitutionnel li ma gëmoon li ma gem nak moy man man soit Habib hmm. dama ci am li may wax nak sama njàngatu bop la moy hmm. Sonko man na sóoraale ne suñ asarne wo won ci kawam ne ka yow do bok di Mari Sagna du bokk Diomaye du bok ku ko bare ak yow du dugg ci election yi nga xam ne élection lay doon yoo xam ne Macky Sall mooy choisir ku mel ne tey ñoom ay ñoom ñi déggoon la ñi ko ñëwaloon dialogue. waaw parce loolu am na ñu ko doon xalaat ne élection yi boo moytul ku di mu doon dialogue doo bokk. dëgg la. waa léegi bu amul Habib ci biir bi moom kan kan lay wateel. mais Cheikh Tidiane Dièye nag loolu bu foofu. Cheikh Tidiane Dièye Cheikh Tidiane Dièye bu doon même acharnement bi dafa agsi ba ci moom nag. Oh, Déthié Fall nag Déthié Fall tam ñu bëri jaaxal nañ leen. dox Déthié Fall yàqaluñu ko ko mais mais mais mais Déthié. Hmm. kan Déthié. Hmm. xam nga Déthié dafa hmm. am parti boppam am lu muy dox. waaw Cheikh Tidiane Dièye daf ne woon du candidat. waaw Habib Sy da ne woon du candidat. waaw donc xanaa Sonko du dem ci Déthié Fall mu yor parteem. Hmm. wala Abdourahmane Diouf mu yor parteem ne ko bàyyil sa parti ñëw ma def la candidat du ko def. mais mënoon a joxe consigne de vote Cheikh Bara mu mënoon a joxe léegi jàppale leen nii waaw. defal ndànk Sonko dara leeru ko woon ne Déthié Fall dina dugg dina nekk par dina jàll parrainage. Ah, waaw waaw. dara leeru ko ci dara leeru ko woon ba xam Boubacar Camara dina jàll. te man li ma gëm mooy état bi dañoo amul woon jot. maanaam candidature Sonko. ni leen ni ñu leen gañee ci Sabassi Faye. gañewaat leen ci Dakar. coow loolu moom lañ talut woon mais buñ teeloon a lijjanti Sonko dinañ asarne wu ci kaw Pastef ba kenn du bokk. man loolu laa gëm. léegi nag benn benn candidat boo xam ne mën nga ko garantir ne di nga bokk te su demee ba ñàng ba ñàng ma ñëw ci yow. Mhm. mais Habib lay doon. Hmm, mais Habib foog nga ne yow. gars yi waa Pastef yi patriote dinañ topp. dinañ topp Sonko ci ci décision boobu voteel koog yooyu. xam nga xam nga loolu loolu lu yomb la. Hmm. bu ñu Habib boo am bu ñu amul Sonko. Hmm. xam nga parce que bu ñu amoon Sonko duñu woteel Jomaay. waaw bu ñu amoon Jomaay duñu woteel Cheikh Tidiane Dièye. bu ñu amul Cheikh Tidiane Dièye duñu woteel Abdel duñu woteel Habib. mais noonu la Habib mën naa nekk plan plan X Y bu ñu maanaam Sonko. tradisi moy man nek kuma xam kuma xamut ñepp la duggal rek parce que man ak lu mëna am rek sénégalais yi daf ko leer na bu ma amé candidat dina gagné ah, légui nak day wutaxé ba am candidat légui nak légui nak habib habib nak habib boko atté ci côté ablay wat man nga joom man habib lenn la ko xamal habib moy mom ak sidi lamine ñaf kenn mënu leen wona takkalé man di dama ànd ak gëm képp kusi si ku di gëm yow mi Sidi la ya, mi ñes moo tax ma fonk voilà voilà ak maam biram waaj Sidi dafa am vision ci àdduna donc Habib Habib man dama gëm ne même bu dul woon dafa nekk plan plan Sonko bu Khalifa Sall ak Sonko dem bam yàgg mu dem nekk candidat bu Abi bëggee nekk candidat Sonko war na ko ko mu dem dàqi wërsëgam maanaam parole logique rek man loolu laa gëm.